dal leen ak jàmm ci AGT News chaîne bi leen di jox xibaar yi wér te wóor leen ngir dara bañ leen a raw. AGT News. bi ma fa toogee ba ay 22 heures di ñibbi naa ba yegg sama fan liberté 6 extension bii laa dëkk comme damaa ngi woon am communication bëgguma woon yéeg pour déranger ñi ma bokkal appartement ma xaaral ma taxaw ci suuf communiquer ba pare su ma paree man yéeg parce que comme te xaw guddi waruma déranger kenn. fi ñu taxawee di communiquer di tàggatoo ci la ñaari scooter yi yi yëpp quatre nervis yi je pense bien mais mooy il faut quatre nervis yi ñooy dawal ak kenn ku ñu supporté ñi ñuy supporté ñooy wàcc tellement que ñu ñu taxawee may ñu ma sax échappatoire ndax dañ taxaw sës ma ci biir ba aw ma fu mu mën a daw dama foogoon ne ay agresseurs lañu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 permettre moom may jàkkaarloog sama ay moromu papa ay sama moromu yaay may jaaraat ci saaga bi mu ma saaga bi loolu amee man j'étais tellement paniqué pour dire vrai góor am na yenn situation yoo xamante ne on est tous man jàpp naa ne jour boobu ay fan di yem bi loolu amee ñu ne léegi nag dañ may diri parce que man dama doon organiser pour bañ a dem ñu may diri dama forcer pour yóbbu ma seen benn pick-up bi ñu gaare juste en face fan lañ ma doon lan lañ namoon ci man xaw ma ci dara mais li ma wóor te wóor mooy menacé nañ ma ne ma ne ma dangay mujjee wax ndaxte dinañ la rey ci panique bu doy waar ci jaaxle ak ci ndimbalu yàlla bi may bi may diri laataa ma ye seen piquet bi laa tourné gis ñaari gendarme en tenue ak seen kii yooyu rek seen protège ñuy sol et tout ça doon def patrouille parce que seen cuisine bi nekkati foofu xaw ma xaw ma woon sax te pourtant suñu bu ma leen séenee ñu génn ci benn réel ci laa leen yuuxu man Pape Abdoulaye Touré ne leen carrément moom parce que bu ma leen gisee ñoom dama amoon yaakaar ni xëy yi ñëw bu ñu yegsee il m'a posé une seule question moo xew fii ñi nga xamante ne ñoom ñu ngi woowee nervi ñu ils se sont présentés comme étant des éléments euh, du ministre de la jeunesse Pape Malick Ndour d'ailleurs looloo tax ngeen dégg gërëm ci sama dossier bi parce que gendarme euh, gendarmerie bi ñu laajtee les nervis dañu ne ñun ay éléments yu Pape Malick Ndour la Ndour Ndour lañu actuellement mi ngi Sen TV di def émission Ndoumbelane le vendredi 2 juin soo leen ko demee vérifier di nga ko gis parce que vérifier naa ko d'ailleurs j'étais courant après la soo ko vérification ñu confirmer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 man lan ngaa ci loxo gendarme ndax jaaxle ak tiit ne ko ngir yàlla wax yow récupéral sama téléphone yi ñu téye ne ngir yàlla bu leen bàyyi ci loxo ñi parce que mën nañ maa fàtt gendarme bi fii la joxee injonction kenn ci mairie yi ne leen bu leen ko dóor bàyyi leen bu ñu yegg fële ba pare récupéré sama téléphone yi gendarme yi ñoo ko mujjee récupéré ci ci yoon bi ñu yegg si ci seen QG bi xamante ne c'est quelques dizaines de mètres actuellement intercepté bu ñu bu ñu yegsee comme déjà gendarmerie ñoom dañoo am supérieur ki nga xamante ni moo nekkoon chef élément yi ne foofu moo waral ngeen di dégg turu chef Sow xam nga sab turam ñu seetaan vidéo bi xam nga de Sénégalais ay image la ñu gis image yu choqué ñëpp waaye am na ay vidéo te dinañ ci dikkaat chef Sow moom bu ñu yegsee moom tamit. naturellement il a posé la question kii kan la lan lan lan moo xew mbir bi ñu waxaat ba léegi changé nañu version par rapport ak version initiale waaye changé wu ñu seen présentation ils ont maintenu leur présentation en disant que nous sommes des éléments du ministre de la na chef ndax xamoo kii kii mooy Pape Abdoulaye Touré ci ñuy wax ndaw yi ñu génn di mi di attaqué nit ñi ci la bokk. pas seen version initiale mooy dañ maa jàpp may manifester mais bu ñu ñëwee ba ci chef sol dañoo changé version mais kii moo nekk ci réseaux sociaux yi di incité jeunes yi à ce que ñu taaw yàq réew mi ma après beneen mbir bi ne fekk nañ ko sax muy wuyu téléphone bi jox ay instructions naan kaay leen attaqué fii ñëw leen fii kenn nekk fii ak ñoom seet ma ne ko amul dëkk jox ma sa récupéral téléphone yi nga jox ma ko mu déverrouiller ko. parce que aw ma temps sax coupé sama appel suñu supprimer wul appel bi ñoom di nga gis kan laa doon mu jox ma mu ubbi ko téléphone mu dugg xool leneen appel mu ne loolu amut ma ci appel bi kese ma dugal ko sama page Facebook ci sama téléphone ma ne ko xoolal mu xool ma dugal sama WhatsApp dévrier ko dugal ko ci biir ne ko groupe yaa ngi nii bu la neex dugal ma xool ndax est-ce que bokk naa ci groupe bu ñuy taalee mu dugg xool. ñaari téléphone nag laa yoroon doyen Maodo mooy lii du bàyyi ma fenn parce que benn téléphone bi vu que je suis le chargé de tout ce qui est communication digitale de la plateforme F24 ñun ñoo ñoo la joxoon benn téléphone pour li pour yombalal ma liggéey bi beneen téléphone bi nekk sama téléphone privé mais sama téléphone privé bi da doon gis euh, euh, bu ko euh, chef son taalee dafa gis image yu image yu président Ousmane Sonko la gis ci ci ci ci sama fond d'écran de verrouillage rek discussion yi jeex na de amatul wax yow lu doon nga def yow lu doon nga def Ousmane Sonko mi fond d'écran comme demal euh, apprenti juriste la te jàpp naa ni jàppal ni xëy na ay nitu yoon lañu ma ne ko ah téléphone maa ko moom su ma neexee def ko ma neex fond ba ci Michael Jackson sax su ma neexoon ma def ko fond Michael Jackson boobu laataa kàddu gi di daan ci la mu ci la mu dugal fuuf boo xamante ne ma ko fàtte moom Cheikh Sow ki jiite woon gendarme yi nekkoon foofu ba pare joxe ordre ay éléments na leen yóbbul leen ñu ko fële ci côté mur bi dinañu wax kan moo ko yóbbu ñu jaga-jaga dem gendarme yi rek ci lim matoon nañ une une vingtaine wala une trentaine de gendarme nervi yi ma jàpp initialement laataa ñuy yegg ci QG bi na nañ yeneen check point de nervi ñëw doolee ko ci lim maanaam li ñu fekkoon ñëpp ci gendarme ak ay nervi ci xayma ma doon nañ cinquante personnes ñu yóbbu ñu tasum ci nervi yi toog loo ci suuf ma toog ñu ne kan moo la yónni ma ne kan moo la yónni ci lan parce que nit suñ ko yónnee dafay am objectif yónni ci lan ba léegi ils sont incapables de redire yónni ci lii maanaam kenn yónni xëy na da nga bëggoon ba ne Ousmane Sonko ma yónni pour ñu mën ko dem jël maanaam kenn yónni sama buntu kër laa taxaw di wuyu sama téléphone dóor yi commencé kan ma la yónni teel teel teel teel kan ma la duma ma duma yi méttee métti bu ma juddoo sama ndey sama baay ba léegi mosuma gis duma yu mel noonu waxuma la ma duma ko man de mais mosuma gis kuñ ko duma wee jël seen ay tonfa mooy seen bâton yooyu nga mën dafa dëgër amuñu sens interdit ci sama yaram kanam bopp nopp bët fépp lañ doon damaa baare baare ba loolu indi sama fracture bii ci sama loxo ndax ay baare pour bañ coups yi pour wàññi effet coups yi ci au visage ba benn su ma so bu ma sonnee pour ma mën a jëlaat tuuti air pour mën a noyyiwaat tuuti. ci vidéo bi bëgg naa mën nañu ko confirmer maa ngi doon naan Cheikh Sow ndax mën naa wax Cheikh Sow ma wax parce que jàpp naa ne su ma waxee loolu chef bi dina arrêté loo élément bi ma nekk di dóor pour mën maa déglu léegi saa su ma waxee loolu day arrêté day wax gars yi arrêté léegi arrêté boobu temps boobu ñuy arrêté muy ay quelques secondes dañu ciy profité waat xaw a jëlaat air tuuti ma ne ko nax dëgg nga bëgg dégg wala nga laa bëgg ma fenn dina ma wax ma dëgg. ma ko dëgg bi mooy kenn yónni wu kenn yónni wu jox naa la sama téléphone vérifié nga kenn yónni wu j'avais que libre ma amee préoccupation ñu jàpp ma mu ne acawaat gars yi commencé dóor man daal dóor nañ ma ba benn di fàttali ne 23 heures maa ngi ci ay loxo maa ngi ci seen loxo déjà ba presque deux heures moins te amul benn moment bu ma toog noppalu amul 23 heures ba deux heures moins. deux heures du matin ñu may torturer après ci laa jékki saay parce que dañoo bëri wër ma nervi yeeg gendarme yi yëpp ñoo ànd def coalition doon ma torturer donc ñu wax ni Pape Abdoulaye Touré est nervi ko torturer ils n'ont pas amul euh, wax nañ dëgg ñi wax ni tamit Pape Abdoulaye Touré ay gendarme ñoo ko torturer wax nañu dëgg. naka ñaari identité yi ñoo def coalition doon ma torturer buñ may dóor flash yaa ngi tàkk gisutuma dara parce que projecteur yi sama bët bi man daal maa ngi baare rek man daal maa jékki saa yi gis xaaju bi buñ ma sànni mu jóge ci ginnaaw gendarmerie ñëw ci man moo waral sama bopp bi xaru bi ma dóoree birig bi ma ma ma tombé dans l'inconscience ma xam li ma gë li ci gën a metti mooy bi xamee. taxul ñu arrêté taxul ñu diib taxul ñu raf dañu profité ci xëm boobu mu xëm ñu dóor ma ay monat mooy monat yooyu nit ñi di ci image yi seere monat te période bi ñu may monat fekk ne dama na monat yi damm damm yi lañ boole seere bu mu dëgër monaté ma par derrière monaté wu ma sax devant kon mu mën a protéger wu par derrière lañ ma monaté am nag accès total ci sama tête ci sama kanam ci sama bopp ak ci sama ay articulation def mu dos au ñoom seen ay termes la parce que dégg naa leen ñu koy wax mettre leen ko dos au sol maanaam jaaxaan ndoomu bi ma jaaxal noowee fu ñuy ximiliku dama fekk benn gendarme kenn ci ñoom seen jël seen ram diis yu diis yooyu wallaahi fii laa ko teg ci baat ci diggante dana bay baat pour neutraliser sama bopp j'étais au ma gis ñaari gendarme fu nekk jàpp te ñaari loxo mu sama ñaari tànk yi ñenn ñu wër ki jëloon tànkam teg ko ci sama baat bi dafa jël gudd dix litres def ci ndox def ci suuf suuf boobu ngeen doon gis ci sama yaram ci image yi boobu la parce que xam naa bëgg nañ ma yee xam nañ ma xam naa bëgg nañ ma yee ñu jaaxaan loolu di ma sotti sama génn dugg sama ay sama ay lox man bu may ximmiliku wallahi azim damaa foogoon ni maa dañ ma dañ ma mujjee tëmbal ci géej ba dem maa nekk di law pour man dama nekk di noyyi la bu muy ximmiliku te man damaa amee traumatisme boobu parce que j'ai failli mu deux fois moo tax bu ma ximali ko dama foog ne dañ maa sànni ci géej buñ ma sottee ndox ba ma ximali ko ñu yëkkatiwaat ma tafaat ma ci biir kan moo la yónni kenn yónni ma ñu continué waat di dóor di dóor ci ay article sama tànk yi dañ ko mujjee tàllal dama toog ñu ne ma tàllalal sa ay tànk ba ma tàllal ko gendarme taxaw xaj ci toofa ba ci loxo bi sës mu dóor ci tànk yi loolu dafa dóor a dóor a dóor ba su ma bàkkee samay tànk ci genou yi lay dóor yi bu moom dóor yu méttee méttee méttee dans bi ma demee ba sonn ma ne ma waa léegi est-ce que doon na ma rek ndax ma noppalu kenn ci gendarmerie génne pistolet bi teg ko sama bopp ne ma ndax ñu ngi rey ci manifestation yi depuis deux mille ak léegi yaa nekk ne ma soo waxul ku la ku la yónni dañ lay rey te mujjul fenn parce que li ñu rey ba léegi mujjul fenn lii gendarmerie moo ko wax. je défie la gendarmerie nationale du général Moussa Fall gendarme moom wax lii teg ma pistolet ci bopp après bu ma dóoree dóor dóor ci biir groupe bi ma doon dóor gis naa benn petit groupe bu doon décalé wu di sori groupe bu ma doon dóor mais bu ñuy dem kenn mi ngi laaj keneen ki ndax bi ñëw bu ko déggee lañ ko war a sol wala ci seen oto nekk te essence bi beneen finalité la woon te bu ñu jàppee ba yóbbu ñu kaam ci laa daje benn kenn ku ñu jàpp mu expliqué ma ne ma fu ñu la doon dóoree sama ko ne fa la dëkk. sama cousin moom moo wax ci noppam sama gémmiñ ci gémmiñam sama nopp mu ne leen amoon na groupe ci ñenn réseau yu ñëw ci côté Filantiram di laajte ndax Casamance bi ñëw na lan mooy jublu lan mooy jubluwaay bi pour ñu taal ma après ñu ne man damaa bëggoon taal benn kër responsable ba man manœuvrer essence bi far mu ma lakk lii moo nekkoon seen objectif tentative de meurtre